ak ko ci moom ak xettali Moussa wax xibte yóbbi ne ko bàyyi ko xibte yóbbi te mooy euh, lakkatu bi ni Moussa ci sa liggéeyu bàyyi laa ko laa koy liggéey loo nii mu bañ Moussa ni ko bàyyi ko bi mu ko ne bàyyi ko mu bañ Moussa daal di mer daal di ñëw jàpp ko daal di sowee saamiri yu boobu ci loxol waajo ji bi mu ko sowee nag xibti yu boobu xëccoo ak Muusa bi ñu amee ab xëccoo Muusa dóor ko benn kurfañ dal di koy rey waaye ba mu koy dóor xamutoon ni dana dee ci dóor bi loolu mooy fa wakasahu Muusa fa xaday alay nee na mu dóor ko benn kurfañ rek mu dal di yem foofa nee Muusa daal ne ah, lii de jëfi seytaane la إنه عدو مضل مبين بعدني ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم Moussa dal di ñaan yàlla ni ko yàlla day ni ko yàlla day tooñ naa sama borom yàlla na nga ma jéggal tooñ naa sama bopp yàlla na nga ma jéggal yàlla jéggal ko ndax mooy jéggalekat bi di yërëmekat bi wax bu neena yalla dafa wax yu musa ne ko giñ naa ci sama tedd nga ak sama mag nga ni bakkan bi nga ray bu ma masona seral sama xol kem farfat la ayin ba mu masa sere ben yon ni may borom bi binde di wërsegal rek na la musal ci ak bugal waye li tax ma jéggal la moy musta seral sama xol kem farfat la ayin musta sere ben yon ni may aji binde ji di aji wërsegal ci wax nañu Moussa bi mu reyee xibti yóbbi yàlla rek leen gis ak israeli bobu mu ko doon don xetali bi ko reyee nag xëy nekk ci biir dëkk bi am tiitaange xol di wër mooy fa asbaha fil madinati xaa'ifan yatarattab mooy di fuglu xibaar yi war a bàyyi ko ci mbooloo mi ak lan la ñuy wax waaye kenn xamul ku ko rey wax nañu ni waa misra dem ci firawna ne ko bani israil rey nañu benn waaye bu bokk ci ñun kon nag dañoo bëgg nga jëlal nu suñu àq ndax loolu kat mënuñ koo jégle firawna ni leen andil leen ma ki ko rey ak ko ko seere ndax mënumaa àtte ci lu dul ay seere ni leen dem leen ngeen sàkk loolu yi ngeen wëri ko daal ba am lu leer nee na bi ñuy wër amuñ benn seere ca ëllëg sa Muusa rombati israel yi ju boobee muy nit kookee doon xeex démb muy xeexati keneen ku bokk ci niti firawna nee na Moussa kooti ci moom ak xettaliku fekk jamono boobu Moussa mi ngi toll ci ak rëccute ci lim defoon démb nee na mu dal ci mer bi mu tàllalee loxoom jëme ko ci misri yóbbi te mooy nituk firawna ki ngir bëgg a tàggale seen diggante waxaale it waaji ni ko innaka la xawiyun la qawiyyan mubin ya, ne ko so bi ne ko yow kat ko daw nga dal di talal loxom bur dem ci firaam ni bi ngir bëgg ko japp waji tit japp ni mom la musa bëgg japp mu dal di daw dal ni ko ndax ba dag ma bëgg ray ni nga rayewon bakkan moy taqtulani kama qatal nafsan bilams dal ni ko in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna min al muslihin niko ko bëggoo lu doon ab jabaal ci kaw sof bëggoo yewenal dara moom mii nga xam ne moom la dem woon dem ba tax mu rayoon nit moo ñëwati wax ko kàddu yooyu xanaa mooy dañuy wax ni noon bu yew moo gën xarit bu dof ndax noon bu yew mën na nekk ci lam nekk rek bàyyi la waaye xarit bu dof moom mën na laa yéenee jariñ sax far lor la ملوك بنا إن اللبيب إذا تزايد بغضه أحرى عليك من الصديق الأحمق موي أجي خلو جو أك مبنية لم دولك تيو دي موغن تيو خارج بدف صالح ابن عبد القدوس وحنكو نينا ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق ena nono ak ku mos mo gën di xarito akub daf da cey teg ni farba bi nafsika an tusadiqa ahmaqa inna sadiqa ala sadiqi musaddaqu moy na nga soril sa bop mos di xarito akub daf ndax ab daf kat ndax ab xarit kat lu mu wax ci xaritam rek loolu ñuy gëm te boo xaritoo ko daf mën na laa indil ay jafe-jafe yu bare bare wax nañ ne bi ñu xabaaree Firawna loolu ñu dégg ne ko Moussa mooy ki reyoon nit ki démb la digal reykat yi ni leen nañu ko rey ni leen sàkku leen ko foo ngeen ko gis rek nañu ko rey ndax as ngóor la sos daal du gindi ko kenn mënu ko teg ci yoon nee na benn waay bu bokk ci kuréelu Moussa jógee ca kaw dëkk ba ñu di ko wax xasqil xasqil moom mi ngi daan dund ci desiiti dine ibrahim bokk na ci ñi jëkk a dëggal muusa alayhi salaam gëm ko jële nañ ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu wax ne ñi jiitu ci xeet yi de ñett lañu ñoo xam mosuñu wedd yàlla kem tarfataa yi muy xasqil muminu ali firawna ak xabibu najaar ak saahibu yaasin أتى علي بن أبي طالب waaw mooy Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu moom lañ jubli ca saaxibu Yaasin mooy ki gën ci ñoom nag mu ne xasqil moom i de muminu ali firawn dal di ñëw jaar ci yoon wu gën a gàtt yoon wañee jaar agsi ci Muusa xibaar ko li xew ni ko mbooloo mi di ngir diisoo ngir rey la te it baax na joxe na ndigal ci buñ la gisee nañ la rey kon nag génnal dëkk bi lii mooy li ma lay labiré